waaw waaw njagar selli njagar war na ko ndëmbu Ndiagar Selly war na ko ndëmbu ndeysaan nee naa jangan doole doxul jàmm ñu koy bay njagar sen dan na ko de njagar fay dan na ko ndeysaan na ana poids Élément Ndiakhar Faye nee na ana poids luri, yi waaw waaw Ndiakhar ndeysaan day laaj poids lourd si kanam ndeysaan la bay leer Allez,